aleykum wa rahmatullahi taala noo ngi leen di nuyu mbokki taalibe yi gannaaw bi ñuy jiitalee ci nuyoo bi euh, sëriñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di nuyu itam sëriñ Mbàkke mi nga xam ne moom mooy kilifa ak jataay bi bismillah ganaaw bi ñuy nuyoo sëriñ Mbàkke di sofaat ci kàddu sëriñ Xaadim yi ak sëriñ Suleymaan daanaka seeni kàddu doyoon na sëkk ci jataay bi waaye comme ndigal la rek ñu daal ci barkeelu loolu yi nag mooy mbégte mi nga xam ne moom mooy feeñ ci mbooleem ñi nga xam ne teew nañ ci jataay bi wala sax ñi nga xam ne ñoom ñoo koy topp ci site internet bi yëpp nga xam ne yëg na manees naa yëg ne fu fi waaye toll tey ji yaa ngi yëg mbégte ci sa xol jataay bi damay yëg ci biir njàng wi nii ñi nekk ci gannaaw di fettaxoo ko euh, manifester beneen xeet defeen woo xam ne si nii du jëmmi xëy na njàng mi waaye am na geneen yëg-yëg goo xam ne mooy daw ci seen biiri xol loolu laa ciy yëgee mooy ne kenn ku ci nekk yaa ngi yëg tey ne naan waaw ndax lu mel ni mas naa ko gis barab bu nekk ma gis kenn bàyyi koo fa jóge fi ngir ñu ñëw jëmmal lu mel nii te lii nag day firndeel li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bindoon ne yaa rabbi yaa rabbi yaj'alil na maha fii xisnika al hasini wa samlaj maa loolu jataay bii daa bokk ci yi koy màndargal li ma ci neex nag mooy man bi may ñëw yëgewu ko woon nii diirub li ñuy jàngit yëgewu ko woon nii bi ñu noppee eh, ñi ma àndaloon xam nañ dara bi ñu bi ma nee tëll ci saal bi jàkkaarloo ñoom sëñ Mor sëñ Xaadim Fall si ñoom sëñ bañ gaañ yi ñëpp dafa mel ne dafa am leneen lu lu duggaat ci man dama doon tël sa kaas yi ma doon génn ngir mbégte mu metti kon loolu mu doon lu ama am solo loo xam ne nii nii ko sëñ Xaadim waxee eh, sëñ man liggéey bi lii sëriñ Tuubaa ko téyel boppam ku yàbbu nag rafet ci njor ndax lu sëriñ Tuubaa yoral boppam la ci ay loxol boppam la lem koy defee moom moo ko bëggee noonu lii nii tam yàlla moom moom la neex mu jaarale ko ci yéen waaye ne ko sëñ Muntaxa waxe woon rek day gën a di gën a wér di gën a sel di gën a gën ba aljana rek bam ñu koy wax ñun la doon wax kàddu yi waaye mbooleem jàngkat yëpp la dugal ci biir ndax la jay firnde mooy beneen yoon dem nañ mu wax ñu lu mel noonu ne ñu samay xarit ngeen bi ñu waxee loolu ñu ne ñu diglu mu ne euh, bu ma jublu li ma jublu yéen jàngkati xadis xasida yi kon booba ñoo leen ceewaleen ca jataay ba waaye ñun déggeen wan ci am mbooleem fu jàngkatu xasida nekk rek yaa nga ci biir mu ne yéen jàngkati xasida yi samay xarit ngeen bu ma waxee loolu daat koy daal di def li ñuy wax préciser gën koo leeral ne bu ma waxee xarit am na ay xarit waaye jàngkat yi xasida yi moom dañuy sama xaritu bopp da ngeen ni da ngeen ni samay tànneef waaw beneen yoon it muy waxaan nan bu leen ci kenn man bu leen ci kenn raw bu mu dib yenente bu mu dib euh, wàlliyu bu leen ci kenn man bu leen ci kenn raw comme mën a doon kon nag ñun foofu rek lañu war a nekk leer na nañ waaye lii nag daa nekk exemplaire boo xam ne si nii ñun ñëpp dañ ciy roy dañ ci roy ndax euh, li ma ko waxee rek day gën a baax rek ne ma ko waxee woon ne day gën a baax baatu day gën a baaxam boobu noonu jànkati arab yi xam nañ ne wax la ju dogo ba noppi maanaam yoo xam ne day am day gën a baax waxul ne mën naa gën a baax wala mën naa dane day gën a baax la wax kon loolu moom lu am la ba noppi lu nekkee seen kanam dam lu ñuy seen lu ñu àggagul la rek waaye noonu lay amee misaal bi nii ma ko waxee jataay bii boo xoolee ñu ci bari ñun yàlla dogal na démb ñoo nekkoon kenn ku ci nekk ci ñun ndax bu ñu mënee misaal fii bu ma ji ma jëlee misaal ci ñi ñu toog ñi denn rek mën nañoo fàttaliku suñu gannaaw loo xam ne fanweeri at la woon ca gannaaw ba tey terewul mi ngi baax ndax sànq di sëñ Xaadim Fall mi ngi may wax loo wax joo xam ne nii mi ngi may fàttali loo xam ne nii ñaar fukki at ak juróom-ñett la ci ren ndax 96 la woon. maa ngi nii sëñ Matar mii ñu mën nañoo fàttali ko loo xam ne si nii bi muy jógee université 94 di ñëw Touba ñu nekk ci wàccaayu màggalu Touba wax jam doon wax ci yoon yi mën nañu ko fàttali ah kon loolu lu yàgg la te ba tey day gën a baax rek sëñ ba mi lu ñu mën a fàttali bari na kon noonu mu baaxee woon ba tey jii nii nii suñu jataayu tey bii lam doon baaxee tey jii dàq ko. nan jàpp ne li ci kaw noonu lay li ci kanam noonu lay demee la sëñ Mountakha doon wax day gën a baax rek kon nag kenn ku ci nekk fas yéeneel barigo bi nga teg ci sa loxo mu yóbbaale la wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë jëf.